jëfaat sëriñ Béthio sëriñ Béthio amul dendandoo soxna Aïda Saliou dëgg dëgg jëmi sëriñ Béthio bi yàlla na fi yàgg lool te wér euh, waa Sénégal fii ak bitim réew maa ngi nuyu ñëpp euh, leen wax ni kat tey man soxna Batoor mu sëriñ Béthio moo woo euh, média yi ngir am lu mu bëgg a yëgle ndax kat luy jot jot na te lu ëpp tuuru dama génnoon sànq ma jékki-jékki woote sama kër ndekete coow dafay am mm, ndekete moom ñi nga xam ni ñoom lañuy wax njabootu sëriñ bi muy góor ñi njabootu sëriñ Béthio góor ñi ñu mag ñi ci njiitalu ki ñu naan femme sàmb ñu koy woowee sëriñ Saliou Gueule Tapée ñoo ñëwoon tey sama kër gi nga xam ni fii la ma sëñ Béthio dël maag sama njaboot ma ne fi ñu ñëwoon fii ci kër gi ne dañu fiy dugg ñu ne leen soxna si nekkuñu fi nekku fi ñuy saaga ak a dóore muy moom ak rakkam yu góor yi nga xam ni ñoom ñoo féete mag ñoom ñëpp indi fi attroupement di proférer ay menaces ak di saaga bay di def ay menaces de mort xam naa nag loolu moom ki nga xam ni moo dund loolu te di taalube ne ci kër gi ma teg ko fi moom lañu fi fekk moom dina wax waaw dem nañu ba dóor ko waaw di leen wax ni nag lii day situation boo xam ni boobaag léegi mi ngi perdurer te mënta ñàkk nag ñu saisir qui de droit ndax euh, Sénégal dañ koy wax naan réewu jàmm la état de droit la du nag euh, lu neex waay def ba tax na booba ak léegi moom ñi ngi subir ay ay ay provocation yoo xam ni moom ñi ngi ne tekk waaw ñi ngi wax ay wax yu ñaaw jëmale ci soxna Aida jëmale ci ñun te boobaak léegi ñu ngi ne tekk waaye nag lu ëpp tuuru ndax antécédents yi li jiitu mooy gannaaw bi sëriñ bi dogal yi am daaw ci le 7 mai 2019 avant Korité gi deux mois après mois de deux mois dañ ñoo woo di ñu laaj lan ku ne lan la yoreel sëñ Béthio fekk nañu ñun ñu ngi koy jooy ba tey ku ne loo yor ñu ne déetawaay ñu jékki-jékki fépp foo xam ni sëñ Béthio kër am na fa kër moom jël nañ ka fa sëriñ bi tegoon dàq ko génne ko ne ca kër ga di lëmbe te ñun kat ñi ngi toog boobaak léegi suñu kër yi ñu sëriñ Béthio may ndax may nañu kër fu ne fépp foo xam ni sëñ kërub sëñ becco la te ñun ñëpp ñu bokk ko dañ koo bàyyeek ñoom ñooy dugg ñooy génn nu mu leen neexee ñemewuñ faa dugg waaye nag li ëpp mooy nag ñu ñuy fekk suñu biir kër yi di ñu menacer di def ay menaces de mort ak ay violation de domicile ndax à Touba fi nga xam ne dañ ne ah foofu kat euh, titre foncier Serigne Touba la ñu ne xaar ñu njëkke foofu ba daaw fekk suñuy kër yi ñu Serigne bi jox dëkk tabaxal ñu ko dëkkal ñu fa depuis 2011 ñëpp xamee ñu fa ak sunu njaboot ñu dem fa dàq ña fa nekkoon daj ji suñuy kër changer serrure yi dëkkal fa seeni seeni nit ne duñu duggati ci kër ya ñu ne pat ñu ne déetawaay jamono jëlee ñu wool ma fi gendarmerie fii Madinatu Salaam kër gu mag gi ma dugg sama biir kër di nettoyer ñu ne damay provoqué may ñëw di waaye sama sëriñ ak ñuy jàng xasaayit ñu wool ma gendarmerie ma ni pat tey nag tey ñu groupe moom kiñ naan femme sàmb ñu min naan sëñ Saal Gueule Tapée moom nee nañu mooy seenu kilifa mu taxaw fii ci buntu kër gi di dagg ay saaga ndey ànd kook ay rakkam ñuy génn ay arme blanche waaw loolu nag ma ne lu ëpp tuuru kon maa ngi interpeller l'état du du du Sénégal waaw di ci jiital président bi ak ñi nga xam mooy les autorités compétentes ndax lu ëpp tuuru te ñun kat dañoo am ak njaboot ak sëriñ bi te lépp li mu li nga xam ni moom warlul na ko boppam def na ko waaw teg na lépp ci yoon. waaye booba ak léegi ñi ngi ñuy wër ak di wër lu ñu am ak bëgg dal suñu kaw ci rek maanaam mbiri mbiri koppar mbiri xaalis fu xaalis ne fu kër ne ñu ngi koy wër waaw sonn nañu nag xanaa saisir kii droit ndax euh, réew mi réewum yoon la waaw fii euh, sëriñ bi dañoo booleek ay taalube te am na loo xam ni ni ñu sunub sëriñ soxna ay Yare moom bëggul ñuy xuloo buggul ñuy xeex ba rek démb ndeysaan mi ngi waxtaan ak ñun ndax saa su ne mi ngi ñuy soññ xam na ni ñu ngi ñuy provoqué waaye daf ñuy dalal waaw dem na ba ne ñu bu ñu leen doon tiim sax di leen wax lu ñaawal di leen ci ne leen tekk bu leen bu leen wuy à la provocation waaye bu ñu demee nag ba paaka di génn ak di bëgg tëb ci doomu sëriñ bi miiru kër gi pour dugg sama biir kër te sama xale yu ndaw yi ay jigéen sama doom yu ndaw yi ñu ngi fi ah loolu ëpp na loolu ëpp na te daa fekkoon ma génn kon bu ñu ma fi fekkoon ah it te taalibe yi seen xol dañoo bëgg sëriñ bi bëgguñu dara takkuñu waaye it ci niñ ñu yaree tax defuñu dara. ak sëñ Bacso jërëjëf ci sëriñ Bacso jërëjëfaat sëriñ Bacso soxna Aida Saliou Thioum dana fi yàgg loolu tànn wér. sant bu baax muy mel ni bu ko sang bi waxee léegi sànq faire. aux environs de 17 heures dafay ñuy wax njabootu sëriñ bi si njiital ki ñuy wax Fam Samb ñu gën kaa xamee si sëriñ Saliou Gueule Tapée ànd fekk ay raxam bokk si Seydina Thioune bokk si bokk si sëriñ Xaadim Mboose bokk si Sall Midaadi ak ñeneen ak seen benn gàddu koor bu àndaloon ak sa euh, sëriñ Saliou Gueule Tapée bi ñu ñëwee ñu laajte soxna si ma ñu leen soxna si nekku nekku fi temps bi may wax ni soxna si nekku fi j'ai reçu des coups venant de Seydina Thioune ensuite bi may jàkkaarloo ñoom di wax ñoom comme kër gi dafa amoon ay jigéen boobu moom jël risque ñu leen di gaañ waaye bu fekkoon man kese la euh, j'allais euh, savoir comment après c'est la si la ñuy commencé di saaga bien insulter et des menaces de mort à notre égard à l'égard de tout la famille même qui son qui sont logés ici dans la maison si loolu si la si la ñu génne arme blanche paaka di def ay menaces de mort ba bëggoon yëg fekkuñu si biir par la suite si la riposte sax si la ñu kii bi may naan damay woo gendarmerie si lañ si lañu jël fuite daw dugg seen oto daw noonu noonu la demee te c'est pas la première fois ñuy woo justice pour mu def lii rëlu ndax kat bu ko defulee ah dina jur leneen te boobaa kat bu ñu waxoon ni prévenir duñu bu ñu wax ni prévenir duñu def nañu loo xam ne waruñu koon def on a reçu des de mort et ils ont promis qu'ils vont revenir avec force même d'une euh, par le khalife ah, celui qui on appelle le khalife c'est Fam Sam plus connu sur, le nom de Serigne Saliou ils ont promis de revenir avec force même donc on lance un appel vis à -vis des autorités compétentes Voilà. Il y avait qui et qui et qui Il y avait Femme Sam, mieux connu sous le de Serine Salim Deltapé, Serine Khalim Thioun, député, Serine Khalim Bossé, Sal Medadi, Sedna et eh, euh, Doruga, qui, qui, euh, à qui toujours ensemble.